ñeent rëccu ba fii teg la fi zakatil xarsi ci azakay mbay azakay mbay hein liy jóge ci suuf quoi li ñuy bay moo xam ay bay arrosé ak affaire yi noonu en tout cas parce que fii bayaat yi kii jàng fii bayaa ni zakatil xarsi woowu moom woowu moom ah mbay li ñuy wax mbay xam nga li ñu xam nga li ñuy bay bari na garab yi li ci jóge bari na waaye am na ci lu ñuy joxe azaka am na ci lu ñuy joxe azaka comme sànq li ñu waxee woon azakay jur ne bul yar ginaar si kër gi de tax nga ne juru kër la waaw bul yor sa baam kuux wala nga yor sa leneen déedéet juru kër ñett rek la nag gëléem ak gàtt mbay tamit daa am loo xamante ne nii ci la ñuy sant ñu génne ci azaka li ci des mu ne waxuwa moom li ñuy wax alma alxasu nee na almuqtaat mooy la ñuy denc almutaxidu li nga xam ne dañ koo jàpp lil ayshi ñeel dund gaaliban ci la gën a nopp lépp li ñu jàpp ne moom la ñuy dañ ko jël xam nga boo bayee ba noppi bu dee dugub la nga dajale dugub bi daal di yóbbu ci sàq ma denc ne sama dund ren ba déwén moom mi ngi nii si ginnaaw kër gi sa àll bi soriwul nga bay fa bisaab ba bay ñebbe di fa bay leneen ak leneen yooyu noonu pour lan lay jariñ mooy ay ndawal lay doon ay pataas ak ñoom yëpp da nga koy dajale pour di ko teg si kaw ndab li si kaw si kaw kii plat bi mais xam xam xam nga xam nga cere kese kese kese kese kese kenn du ko lekk dañ si def ñeex yi ànd ak ñeex mi yooyu nee na loolu nekkul dund cere ji ci boobu mooy dund ci cere ji dañuy génne avec lii indi cere kaw li ñuy bàyyi pour mu indi cere ñoom ci li ñuy génne avec bu dee ceeb moo gën a nekk si dund bi mu ne ceeb ba ñuy dajale bay ko mu bari bari bari nee na loolu laa leen sant ngeen génne avec mais tomate bi nga xamante ne nii mooy tax ceeb ba xonq su ngeen bi ngeen ko bàyyee ak ñoom ñaam bi affaire yooyu noonu su ko may yooyu nee na doo si génne avec parce que yooyu bi yu ñuy dajale denc ko pour dund boobu moom almuqtaat almutaxidu li ñu jàppale la aychi ñeel dund xaaliban ci la gën a nopp baatu xaaliban gis nga tout souvent di nga xam nga xam nga ruti am na plat la ruti plat la boo xamante ne ni base bi ñaam bi la ndambee am na plat bi base bi ñebbe la xam nga xam nga ñe foofu ñebe bu fa amul plat du am mais boo yoree cere boo xamante ni da nga ci def ñeexu baase baase bi mën na am ñebe mais su ñebe ji ñëwul du tee mu nekk baase waaw léegi nag léegi nag mu bëgg ñu ñu ràññee la affaire yooyu quoi mu daal ne fataj bi dana war azzakaatu azaka fil xentati wa shairi yii nii ay dugub la am na ñu wax ne am na am na ñu wax ne xenta mooy suuna bu boobu noonu ñu xam am ñu ne ma shair mooy suuna bi am ñeneen ma saayir mooy mbokk xam nga en tout cas diggante bëti ak suuna après maa ngi mel ne nag ab kaw ko maa ngi mel ne ku bàyyi dara xam nga dugub di ngay di ngay gis di ngay di ngay gis nii si si marché yi su ma nekk si ay kii nii rek saako yi noonu moom mooy suuna dugub simple quoi suuna léegi moom am nañu ne mooy mooy saayir bi am nañu mu wax ne saayir mooy mbokk am nañu ma ko wax waaye war ursi ak ceeb wa nax yaa ak yu ndóol yooyu yi mel noonu bële mi ngi ci biir ak yeneen xeet dëgg dëgg duma baykat nee na wa fil xataal nii ab ensemble la quoi kal adati wal basilat wal fuuli wal ximmat xaw ma leen xaw ma leen wa fi tamri war na ci tàndarma wa zabi wa fi ne de waaw wa fi tamri ak ci tàndarma wa zabi bi am ñu wax ñebbe wa zaytuni olive mu ne waaye wala tajibu nag du war bu mu azaka fil xasabi ci lu mel ne ñaam bi suukar bara garab yu bindoo noonu wal bo wal boquuli ak reen ak yi nga xam ne ay reen lañ xam nga ñaam bi reen la ak pataat wattiini ak figg wal fawaaki yi ak xeet furu yi karrumaan ni ki granate ne n yooyu azaka waru ci waaye nag am na ay déggin gis nga li ñuy wax naan azaka war na ak azaka waru ci am na ay déggin surtout jamono ji ñu nekk xam nga kër lan lañ ci xam dëkke ay oto xam nga nit mën naa am benn oto boo xam ne da koy war waaye keneen day am ñetti oto ñetti yëpp lay wax bii long voyage bii pour suy xëy bii pour suy dem seeti ay xarit affaire yooyu quoi ay oto yu bari keneen am keneen nekk ci commerce boo xamante ne nii yii ñu ne dañu ci gën a azaka waaw moom lay moom lay jaay léegi nag bu ci nekk am na ay déggin lii nga xam ne da nga kaa am da nga kaa am di ko jëfandikoo kenn mosu la see sant asaka kër gi nga dëkk kenn waxoon ne sa kanam na nga ko xayma joxe asaka joxe asaka de mais kii am léegi ay immeuble luyee leen nag muy génne xaalis bu bëri ndax asaka war la ki nga xam ne dafa yor ay taxi douze taxi taxi di liggéey sax du univers xam nga xaalis bu bëri lañ koy indil léegi boo nee oto kenn du ko génne asaka rek nag léegi loolu lan mooy atte bi keneen ki nga xamante ni dañ ne ko fruit moom kenn du ko génne azaka moom mu am vingt hectares yoo xamante ni lépp mango la mango yi di meññ bu baax a baax a baax trois fois par année par exemple di génne lu bari ba muy importé léegi lan lañ koy wax dañ naan ko mango ji léegi nekkatul mango dañ xamoon nga xam ne dañ ko daan dañ ko daan aji yóbbu si kër yi su ñu pare di ko dese di ko deseera wala reer wala soo amee gan nga daggal ko mais léegi beneen mango la mais mango bi ñuy commercial bi ñuy commercialisé la dañ koy jaay dañ koy dañ koy sax import export léegi yooyu noonu dafa laaj ay gës ay xalaat ay détails yu bari yeneen téere yi yu bari ay surtout ay téere yoo xamante ni téere yu xaw a bees la quoi borom xam yi nga xamante ni ñoom yu méngoo ak jamono la yu am yaatu xam-xam bind si ay téere yu bees développé nañ si ay wax yu bari ay wax yu bari man nag comme téere téere yi borom téere yi foofu la si yem foofu la si yem xaw non man loolu mos naa xalaat mais dama dégg ñu ne.
mën nga am na ay coow yu bari dafa am benn jour dafa tombé sax bës naa fi ba baa ngi jégalu dafa am benn jour ma toog nii suñu kër taal ban télé taal yaakaar naa 2STV fekk Maodo Faye am ku mu invité ñuy waxtaan azak dafa tombé woon ak période yi ñuy kii azak ñuy waxtaan azak mu jox ko une série de questions ci affaire yi nii benn par benn quoi ñuy demee ñuy waxtaan nii waa ji répondre ba eggal bi mu paree rek ma dem RDV benn suba teel la yaakaar naa tombé faak keneen ki ñu ñu koy intéressé ci asaka même question yi nii même ñu ñu posé ko ñoom ñaar ñu répondre réponse yoo xamante ni diamétralement opposé barke yàlla barke ay réponse yu wuute jóg bokkuñu sax kenn ku nekk borom xam-xam nga ñu wax argumenté expliqué li ñuy wax mais affaire bi wuute barke yàlla dafa ni finalement loolu dootul mujjee si yoon, mais dafa mel ni commerce genre commerce.
waaw ni ñu koy génnee sax day change Mhm.
li ngeen seen ay change waaye nag yàlla baax na léegi nag yow ma asakay mbay bokkul ak asakay jur boo ko bokkul ak asakay kaye ndax yee benn bu ci nekk na am at lu ñuy wax xaalis bi nga denc ren ba déwén soxla woo ko nga génne asaka jur yi nga yor di ko yar ren ba déwén ñu am fi at ñoom nga génne asaka waaye bu dee mbay moom tàmbali nga bay suñ ñoree ba ñu mën kaa lekk da ngay daal di dajale jox seen borom seen wàll yow nga door dem duñ la wax na am at xam nga boo xoolee sax xam ni xam ni xam ni xam ni loolu du jàll waaw léegi nag euh, moom am na nisaabam ñaar fukki dinaar la ñu waxoon ci wurus wax ñaar téeméer dërëm ci xaalis wax juróomi gëléem fanweeri xar ak ñeent fukki gàtt wa nisaabul xar nisaabu mbay asakay mbay nee na xamsatu aw suqin mooy juróomi bërigo soo bayee ba eggal buy da ngaa bay ba eggal li nga bay nekk ñaari bërigo kese waaye du la doy yow dalal du sax doy waxuma laa nga naan da nga siy maye da nga siy joxe yàlla ne yërëm naa la comme man daal dëgg dëgg samay jaam yi ñàkk nañ gaa waaye nag yaakaaruñ si yow bu ñu yaakaaree si yow ñoom dara de nañ dem si borom 15 bërigo yi 50 bërigo yi baal na si mais ki nga xam ne matal na juróomi bërigo nag mu ne ko maye ci xamsatu aw suqin wéy ya alfrutilin mooy ñe te- junni rythme wa settu mi ati ak juróom-benn téeméer bil Bagdaad yi ci peese Bagdaad Bagdaad yi wa kullu rythme rythme bu nekk nag nee na mi atu dirhamin mooy téeméeri dërëm wa samaaniyu wa samaaniyatu wa ashruna dirhamin bi dirhamin makki yi loolu wow wow wow loolu xamsuna wa xamsa xabatin lii ma am solo lii nii moo am solo min ash-sha'iri al-mutawassit bu bu bu pees pees kii peese bi xam nga juróom bërigo yi wax ji doy na ñun mën nañu fa yem waaye boo précision xamsuuna wa xumusa xabbatin min ash-sha'iri lu toll nii mboq bu diggu doomu mboq bu bu dee sa- sha'ir mooy mboq bu dee sha'ir mooy pe- mooy pepp nag suuna nag ah benn da xaw ma fi xaw ma prix bi lan la waaye en tout cas nga am si xam suuna waxumu saa xabbatin nga am ko si benn si nga am ko mi nga multiplier ko ay xaw ma lan alfritune nag affaire yi nii nii nii ay précision la lii xaw ma ko mooy li ñu doon wax ci ci seen ñaar téeméer bi ñii di wax li ñuy di wax la ala askan yi nii ñun xamuñu ko duñu ci benn utilisation xamuñu ko waaw waaye lu important mooy juróomi bëri ko boo ko amee ñu ngi génne asaka waaw kat wa innama tuxtabaru nee na xamal ne danañu xaar al awsuqu bërigo yi nii baada wadai ma fiha min al xashafi wa rutubat bu ñuy wax naan da nga gën kii juróomi bërigo boo ko amee da nga génne asaka waxuñu nga bay ay dugub rek jël mbool yi yëpp dajale leen booy kii déedéet dugub ji si boppam la ñuy wax bu dee luy tooy waaw waaw kii woo kii woo kii woo woowal nañ ko ci li ci tooy dañuy tenir compte ci liy tooy tenir compte ci liy waaw xam nga anam sax sandarma ñu ngi wéy wal muxraju nee na li ñuy génnee min zakatal xaalis ci alakay may al usr mooy fukkeel ba ñu ngi dara mooy fukkeel ba mooy asakay mbay dañuy wax waa ji ne ko li nga yor da nga koy diviser par dix nga joxe benn ba wala nga diviser ko par vingt nga joxe benn ba mooy par dix nga joxe moitié bi quoi léegi nag pour kenn ki ci des pour moomam mbir def ña kii moomam un vingtième kii moomam un un dixième kan moomam un cinquième mooy kii muy waaj a wax wala mu xuraju li ñuy génne min zakat xaalis si asakay mbay alaxus mooy fukkeel ba un dixième fii ma ci loo xam ne suqiya nandalees na ko min gayri mashaqatin ci lulu coono kama istamaan li fi moo ko asamaan yow jiw nga am jiw nga ko si tool bu baax dem toog asamaan taw ba mu tooy xep xep xep affaire yi màgg nga daal def opération yi ci war manœuvre yi daal di yóbbu sa yëf waaye wa nisful usri nag genn wàll fukkeel la indi mooy un vingtième fii ma ci loo xam ne suqiya nandalees na ko bi aalatin ci gub jumtukaay kaddawaal yi koo xamante ni daa am ay oto am ay machine am engrais am ay taux yu fi indi ndoxam forage yëpp daje wala sax ay teen laam wala ay sayaan am ka ay effort la def pour arroser toolam toolam ba mu tooy nee na kooku bu bayee ba égal na joxe un vingtième bu mu joxe un dixième asakay mbay pare na ci waaye comme dañoo waxoon alal duñ ko jagleel jamono duñ ko jagleel kem biñ ko jagleel ñu war ko jëmale ci ay jëmm yuñ ko jagleel jëmm yooyu lan lay waaj wax fii faslun buntu la buy teqale fii bayaani ma fii bayaani man ci bérélu ña nga xam ne tas tusrafu def na soppi loxo wala boog bérélu ka nga xam ne tusrafu def na soppi loxo ñeel ko azakaatu azaka moo tax tudd faxu des na jiñ joxe génne li ahadil asnaafi ñeel kenn ci façon yi xeet asamaane yi ñett almadkuur yi la ñi xam ñi nga xamante ni tudd na leen fi qawlihi taala ci waxee yàlla ji suratu tawba fi yàlla di waxee naan innama sadaqatu lil fuqaraa wal masakin al aaya ñu jël ko wala ñu bañ ko jël cey waay cey yàlla nañu yàlla sutura nee na al awalu ku ci njëkk al faqiru mooy faqira bi wa huwa soo xamul faqir mooy alladi ka nga xam ne yamliku am na moom na achay à lëf waaye alertir lu néew moom tuuti la am amul lu ko doy allazi koo xam ne laayeg la nga xam ne moom laayeg fii doy ko li ay fii ñeel dundam moom moom li am na dara dëgg la boo demee sax fonctionnaire la waaye njabootam moo yaatu deux cent mille lay fayee ko par mois waaye am na ñett jabar ak quinze gos baayam a ngi dund ak yaayam nijaayam tantaam ñëpp moom lañ yaakaar maam bu góor ak maam bu jigéen ñi fi gorom yi ñoom lañ yaakaar si deux cent mille am na dara ga waaye bariwul nag bokkul ak ki am deux cent mille te papaam soxlawul xaalisam yaayam soxlawu ko amul jabar am deux cent mille pour moom la joxewul dépensé wul dara gaz fa jënd ko ak suukar xam nga bokkuñu léegi kenneex moom xam naa dara denc alal ren bu déwén daal di ñëw jox waa ji dañoo bokk fu ñuy liggéeyee kat donc faqiir mu ngi ci société bi di dund ak nit ñi di dox di dem ñemewul laaj kenn ndax day xëy di wàcc di daan dooleem wa in kaana donte nekk naa yamliku di moom nisaaban lu mat nisaab laa yaqumu bihi wala bi ayaalihi شرع الإنسان يسمع كده يجيب عن قوله فإن كان الإنسان waaw donte donte donte am na nisaab waaye nisaab bi laa yaqumu bihi doyu ko moom waaw man sama sooy lii la salaamaaleykum pourtant maa ngi ñëw de ana kii